na ñëpp teewlu ñu déglu tuuti rek asalaamualeykum wa rahmatullah noo ngi dellusi di teewlooti waru noo weesu wenn waxtu woo xam ne dañu teewlooti teewlu bu demee nii fa tabaarakallaahu sëñ bi nee na noo ngi sant bu baax a baax a baax a baax kilifa yu tedd yii ñu leen di tudd tudd sëriñ bi bi sant di leen gërëm bu baax a baax. di sant di leen sant gërëm bu baax a baax a baax. di leen sant sunu borom di leen sant sëriñ bi. di leen sant ñoom ci seen bopp sant ngërëm lu rëy rëy. di leen sant ñoom ci seen bopp it sant ngërëm lu rëy rëy rëy. lii dëgg la am nañ ci yéene am nañ ci pasteef. nee na lii dëgg la am nañ ci yéene am nañ ci pasteef. Eh, alhamdulilah rabbil alamin dañ koo fekk ci ñoom. waaye alhamdulilah rabbil alamin dañ koo fekk ci ñoom. nu àndandoo ko. nu àndandoo ko. ba jataay bi mën a am. loolu fa tabaarakallahu dal na xel bu baax a baax a baax. sëñ bi kenn mënu ko jox ak xam. sëñ bi kenn mënu ko jox ak xam. loolu bu ku seet diggante ak boromam diggante ak yonent bi. ku seet digganteem ak boromam ak digganteem ak yonent bi. xam ne kenn mënu ko jox ak xam. di xam ne kenn mënu ko jox ak xam. waaye lu nu ko tële tële tële nag. waaye lu nu ko tële tële nag. war nañu jéem. waaye war nañoo jéem. ndax jataay bu mel nii. ndax jataay bu mel nii. ndaje mu mel nii. ndaje mu mel nii. teewlu gu demee nii. teewlu gu demee nii. danoo war ci sëriñ bi. danoo war ci sëriñ bi. ci waxtu bu nekk. ci waxtu bu nekk. dëgg la àdduna bari nay gàllankoor. dëgg la àdduna bari nay gàllankoor. bari nay gàllankoor lool. bari nay gàllankoor lool. waaye nu fab sunuy waxtu yëpp. waaye nu fab sunuy waxtu yëpp. Eh, jox ko sëriñ bi. jox ko sëriñ bi. di ko di di ko di ko di ko sant. di ko sant. cant gu amul ab. cant gu amul ab. sant ko dig diggam ak boromam. sant ko diggam ak boromam. sant ko diggam ak yonent bi. sant ko diggam ak yonent bi. sant ko ci bopp diggam ak boppam. sant ko ci diggam ak boppam. sant ko it suñu diggante suñu diggante moom. sant ko it suñu diggante ak moom. yooyu cant neexut a boole. yooyu cant neexut a boole. te it moo nu war itam nag. te it moo nu itam nag. sant yàlla bu baax a baax. mu ne nan sant yàlla bu baax a baax a baax. ba nu ba nu suñu borom booleeg sëriñ bi. ba nu suñu borom booleeg sëriñ bi. xeeraat nu ci moom. xiiraat ñu ci moom. ba nu bëgg ko. ba nu bëgg ko. yamale wuñ koog dara. yamale wuñ koog dara. gëm ko it. gëm ko it. suñ digganteeg suñu borom. suñu digganteeg suñu borom. mu doy nu sëkk. mu doy nu sëkk. biir ak biti. biir ak biti. tey ak ëllëg. tey ëllëg. kon sant rek nu war. kon sant rek moo nu war. te di ko jéem a nag sant. te di ko jéem a nag sant. jéem sant gi weesuwul. jéem a sant gi weesuwul. dellu ci moom rek. dellu ci moom rek. nekk nekkal ko rek nekkal ko rek ci lim bëgg. nekkal ko rek ci lim bëgg. moom boromam rek la bëgg. moom boromam rek la bëgg. yonent bi ko digal. bëggul leneen. bëggul leneen. ci loolu rek la nekkoon. ci loolu rek la nekkoon. bañ ko xamee. bañ ko xamee. di ko gis. di ko gis. ba biñ ko noppee gis. ba biñ ko noppee gis. kon nag alhamdulilah rabil aalamiin. kon nag alhamdulilah rabil aalamiin. Mbacke ñu ngi leen di sant leen gërëm bu baax. na Mbacke ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax. lii ma wax. lii ma wax. ci sant gu nu war a sax ci sant ko. ci sant gu ci sax gunu war a sax ci sant ko. Eh, dama ko wax rek. nee na daf koo wax rek. waaye noo noo ko bokk. waaye moog yéen a ko bokk. xam naa ne moo nekk ci yéen. te moom xam na ne moo nekk ci yéen. sëriñ bi rek sëriñ bi rek a nekk ci yéen. sëriñ bi rek a nekk ci yéen. loolu nañ sant yàlla bu baax. loolu nañ sant yàlla bu baax. te jëmee ko kanam rek. te jëmee ko kanam rek. suñu yitte jëpp. suñu yitte jëpp. nañ ko delloo sëriñ bi. nañ ko delloo sëriñ bi. bu ñu ko defee. bu ñu ko defee. dana noppalu teeg ëllëg. dinañ noppalu teeg ëllëg. dinañ texe teeg ëllëg. dinañ texe teeg ëllëg. dinañ mucc teeg ëllëg. dinañu mucc teeg ëllëg. defaru teeg dinañ defaru teeg ëllëg. do yëngu yëngu baa ngoog kon mu ngoog yëngu baa ngoog euh, lii nee na lii dañuy jéem rek baaxantal rek nee dañuy jéem rek baaxantal rek waaye dañ ko waroon a def wird waaye dañ ko waroon a def wird ndaje mi yëpp mi yëpp dañ ko waroon def muy muy benn wird benn wird dañ ko waroon def muy wenn wird boo xam ne dañuy am pastéefu boo xam ne dañuy am pastéefu bés bu def ko bés bu set du def ko mooy moo doon moo doon moo yey ci sëriñ bi. loolu moo yey ci sëriñ bi. kon nag ginnaaw mënuñu loolu itam nag. kon ginnaaw mënuñu loolu itam nag. nañ bàyyi xel lu mel nii bu baax a baax. nañ bàyyi xel lu mel nii bu baax a baax a baax. delloo ko sunu lépp. delloo ko sunu lépp. delloo lépp. delloo ko lépp. di ko yëngul. di ko yëngul. di ko yëngul ci su su sunu lépp. di ko yëngul ci sunu lépp. defal defal defal defal ko ko defal ko ko addiya. defal ko ko addiya. baaxantal ko ak sunu cant ak moom. baaxantal ko ak sunu cant ak moom. kon nag Mbacke jërë ngeen jëf. kon nag Mbacke jërë ngeen jëf. ñu sant bu baax. sëñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax. ak bokki taalibe yi. yi nu bokkal lii bu baax a baax. yi nu yi nu bokkal lii bu baax a baax. taxawaay bi ak taxawaay bi ak jataay bi. di leen sant di leen gërëm bu baax a baax. di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax. waaw kon nee na mu ngoog rek. di sant suñu kilifa yi nga xam ne moom ñoo ñoo ñoom lañ fi nekkal. di sant suñu kilifa yi nga xam ne ñoom lañ fi nekkal. ndax ñooñu ñooñu ñooñu tàggat. ñooñu tàggat. ñooñu tàggat ci sëriñ bi. tàggat ñu ci sëriñ bi. wan ñu sëriñ bi. wan ñu sëriñ bi. soññu ñu ci sëriñ bi. soññu ñu ci sëriñ bi. kon ñooñu ñu ngi leen di sant bu baax a baax. kon ñooñu ñu ngi leen di sant bu baax a baax. di leen gërëm bu baax a baax. di leen gërëm bu baax a baax. leen di leen di leen wan ne noo ngi seen noo tànk. di leen wan ne noo ngi ci seen i tànk. sunu kem kattan. sunu kéem kattan. jër ngeen jëf. jërë ngeen jëf. xamuñu lu wax. nee na xamuñu lu ñuy wax. nee na xolam dafa sedd guy. yaakaar dolliku lool. yaakaaram dolliku lool. xel gën a xelam gën a dal lool. jërë ngeen jëf Mbacke. jërë ngeen jëf Mbacke. jërë ngeen jëf mbokki taalibe yëpp. di leen sant leen gërëm. na ñëpp tàllal <laughs> na ñëpp tàllal. yegg yegg la rek. nee na yegg sëñ sëñ sëñ Fall moom sëñ euh, euh, sëñ Moutala nee na ko yegg ak yeggal yeggale rek mbakke waaw na ñëpp nangu ñaan. amiin amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke <laughs> jërëjëf jërëjëf Mbacke